ginnaaw bi feebar bii di coronavirus duggee ci dëkk bu sell bi di Touba ca benn moodu moodu bu bàyyi ko woon fële ci Italie indiw ko fi ginnaaw bi mu ko wàllee nag ak njabootam ak ay soxnaam loolee nag tax docteur Dieng mi nga xam ne moom moo jiite wàllum kër docteur dajale woon tey mboolem presse bi ngir waaye sensibiliser mboolem ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba ngir ñu jël seen ay matuwaay ci feebar bi nga xam ne kat am na ci dëkk bi ginnaaw bi nga xamante ne ni juróom-benn nit nga xam ne dal na leen kat ña nga leen rawale ji fële ca Ndakaaru loolee nag tax docteur Dieng yëkkati woon kàddoom di wax ak askanu Touba ñu teewul ay kàddoom. ko def ngir yee nit ñi ak ngir jox leen information yoo xam ne mooy yi dëppoo ak dëgg ndax gis nañ ne boobaak léegi euh, bëri na yoo xam ne ñu ngi koy wax ci presse bi ak ci réseaux sociaux yi dëppoowul ak li nga xam ne moom moo am ba tax ñu woote ngir joxe information yi nga xam ne mooy information yu dëggu yi ba tax am kenn ci doomu dëkk bi bu doon dund fële ci Italie Euh, bayiko ci Italie durom ben fan ci wèr bi ñu nek muy wèru mars dal di jël roplan bu ñuy wax Royal Air Maroc mu joggé Italie jaar Maroc besu durom ben fan ci wèru mars bi mu jaaré Maroc escalfa ñu contrôler ko saytu yaramam mais amul won fièvre bi manam fièvre bi wul won fess ci yaramam donc mu jall ñëw Sénégal ak fi ci goudik durum benn fan ak tambalik durum ñaari fan ci wéru mars bi mu agsee Sénégal aussi ñu saytu yaramam ci aéroport Blaise Diagne gis né yaramam amul benn màndarga buy tax ñu njort ne amna fièvre bi ci kaw lolu le génn aéroport bi jël taxi ñëw Touba bi mu Touba mu ngi fi accé besu djuroom ñaari fan ci wéru mars bi bim fi accé itam xamna choono tukki bi japp ko mu tok kërëm teud fa nam fa teudé nak dafa dem ba mu am ñaari fan ci ginnaw bi mu fi accès le 9 donc mu tambali di yëg ci yaramam tangor ak sekkat bu wow ak yaram buy tang ak yaram buy metti mu melne choono de ko duggu ak grippe ci kaw le xey beur setu fukki fan ci wéru mars bi ñew ci kër docteur

le 11 mars muy fukki fan ak benn Institut Pasteur tontuñu ne ñu malaat boobu ngeen ñu yónnee woon ay analyse am dafa am feebar bi ñuy wax coronavirus kon lu jiitu lool nag ñun jëloon nañ suñuy matuwaay ndax xamoon nañ ne feebar bi yàgg-yàgg dina agsi ndax loo xam ne day law ci réew yëpp te Touba nekk réew euh, dëkk boo xam ne dem ak dikk bi dafa bëri ba taxoon ñun ñu jël suñuy matuwaay bi mu bi ñu gisee ni njort nañ ko ci moom ñu dugal ko ci saal boo xam ne moom rek moo fay fanaan am jumtukaay yi war yëpp pour mu bañ a génn saal bi ba tax docteur yi di ko mën di fekk foofu di ko faj ci kaw loolu itam ci lañu ñu euh, dem saytu waa këram seet ña fa nekk ñëpp xool lim bi jël seeni tur ak seeni at ak seen ak ni ñu dëkkee xool seen dëkkuwaay ba pare euh, digal leen ñu toog ci kër gi bañ a génn ngir bañ a euh, génn di wasaare feebar bi ak itam ñu toog pour ñu saytu seen yaram ci diggante ba ñu gisee feebar bi ci seen waajur ba ba muy am fukki fan ak ñeent. donc ci kaw loolu la ñu def ñaari fan ginnaaw bi ñu gisee cas njëkk bi ñu gis ne soxnaam dafa tàmbali di am euh, feebar bi di am màndargay feebar bi bu ñu defee ay analyse ñu gis itam ne moom itam dafa am feebar bi ñu continuer di càmbar ñi nga xam ne ñoom la dëkkal nekk ay njabootam ak ñi mu dëkkal biñ ko càmbaree ba bésu tey bi fii ma leen di wax mu am juróom benn yoo xam ne dañu gis ne dafa mel ni dañu am feebar bi ñu daldi jël defal leen ay analyse biñ defee analyse yi ñu gis ne juróom ci ñoom dañu am feebar bi kon muy juróomi nit yoo xam ne dañu ñëw dolliku ci ka nga xam ne moo ko njëkk a am te ñoo ñëpp bokk dëkk ci benn kër donc loolu ma koy leeral ndax dañu dégg ci réseau sociaux yi ak ci presse bi ñuy wax ne feebar bi dafa tasaaroo tuubaa ak quartier yooyu may xamal la ne feebar bi fii ci tuubaa ci benn kër lañ ko nemmeeku te ñi mu dal ñëpp bañ gis ko ci ñoom ci kër googu la ñu jógee te ñooñu itam ba ñu leen gisee ba léegi ñu ngi leen di taxawu te ki nga xam ne moo ko njëkk a am ba mu jógee Italie ba ñëw tuubaa demul demul demul fële ci Poroxaan ndax moom bés bi muy agsi tuubaa fekk na Poroxaan weesu na parce que moom le 6 la agsi bésu le 7 sax la agsi Touba te it ministère de la santé dafa jëloon décision comme feebar bi ci benn kër rek la nekk mu ne kon ñamu dal te ñu gis ne defal nañ leen analyse gis ko ci ñoom nañ leen jël indi leen fànn ñu taxawu leen te loolu li feebar bi nekk ci benn kër nga xam kër googu ñu fa jël ay mesures de quarantaine yu am solo moo tax ñu jël ñooñu yóbbu leen fànn te loolu lim ñu indil mooy su fekkee ne malade yi mu dal jël nañ leen yóbbu fan dootuñu am contact ak personnel bi nga xam ne day amaat ak contact yeneen malaat wala day amaat ak contact ak seeni njaboot ci seeni kër. may wax itam ci fan yi leeral na nañu am na ñu ñu ñëw wax ne am na ñuy jógee ci dëkku Europe yi particulièrement itali di ñëw di toog seeni kër. te du ñu dem ci kër docteur ñu nemmeeku seen yaram seetal leen ko ndax ñu ci bari ci ñoom suñuy agsi xëy na dañ dul am benn signe ba tax suñu ñëwee rek dañuy dem toog seen kër ñu doon ñaan ñi nga xam ne ñooy tukki te di ñëw fan yi ku ci ñëw rek nga fexe ñëw hôpital ñu seet la ba pare jël sa contact pour fexe di la suivre ba fukki fan ak ñeent yi weesu ndax itam ñun ñi nekk ci hôpitaux yi amuñu moyen pour xam kan moo ñëw ak kañ la ñëw ak fu mu nekk ak fu mu dëkk loolu yéen yéen ñu ci mën a jàppale ndax su fekkee ne askan wi communauté bi dugalul loxoom ci loolu risque bi mooy képp koo xam ne da nga ñëw indaale feebar bi nekk ci biir askan wi te bañ a dem kër docteur ñu seet sa yaram di nga wàll ñi nga dëkkal te sooy wàll amaana say njaboot ngay njëkk a wàll. ba tax ñuy ñaan vraiment journaliste yi presse bi ñëpp jàpp ci ñu yee nit ñi ci loolu ndax feebar bi dafa toll foo xam ne dootul yëfu sante kese daanaka ñun ñoo ci bokk yem ñun dañu féetewoo paj mi rek waaye su fekkee eh, wàllu wàllante bi wàllante bi moom ñëpp ñëpp lay wax ñëpp ñoo ci bokk yem ba tax ñun ñëpp ñoo war a boole suñuy doole boole suñuy xam-xam boole suñuy moyen pour fexe àndandoo xeex feebar bi comme ni ma ko waxee feebar boo xam ne su nit sëqatee wala mu tichooli wala muy wax wala mu nuyu la su dee am na ko mën na la ko wàll kooku xam ngeen ne ñun ñëpp mën nañ ñu ko wàll kon ñun ñëpp nañ booloo fexe xeex feebar bi. donc Touba est actuellement une ville qui est surveillée du point de vue épidémiologique et qui est qui polarise l'attention de toutes les autorités du ministère. leneen li mooy événement yi nga xam ne mu ngi ñëw nekk na loo xam ne ñu ngi intensifier sensibilisation pour fexe ba ñu mën a taxawu événement yooyu ba propagation du ci mën juddoo. aussi programme ci àjjuma ji def le tour des mosquées pour fexe wax ak ñi nga xam ne ñooy ñëw di julli si àjjuma. ngir aussi ñom ñu yobale ay ay message yo xamné suñu suñ sen bir biir dina leen jëriñ pour vous dire que actuellement on a pris toutes les dispositions mais fièvre bi dafa tëdde noo xam ne loo jël jël disposition toujours virus bi wala ki ñëw do xam ban anam lay ñëwee. Euh, ni ñuy xeexe fièvre bi ak diko moytu moy nañu fexé bay set. li jiitu ci set bi mooy set ci suñuy loxo fexe di raxas loxo yi fexe ba ku génn soo demee fa nga jëm su amee foo raxas